bari na luñ ci mën a jàng ndax dama ñëw ci turu conseil municipal bi Thiès ci turu waa Thiès indi suñu nuyoo indi suñu suñu sargal euh, famille bi euh, famille Seydi Hadj Malick si yëpp ci bés bi nga xamante ni ci la ñuy jëm ma sàkku ci ñaan eh, sàkku ci ñaan ci waa Thiès waaye sàkku ci ñaan ci waa Sénégal yëpp Ah, loolu at mu dañ koy def kon dañu président de la république euh, suñu constitution moo ko may ba assemblée bi defee ñaari at mu mën ko di le président de la république respecter procédure Il jël avis conseil constitutionnel jël aussi avis premier ministre ak président de l'assemblée nationale mu tas euh, assemblée boobu féete na ko te ñu des ci li ñu jëm ñu am yaakaar di ñaan assemblée bu bees bu taxaw ak ay góor ak ay jigéen ak ay ndaw yoo xamante ni dinañu mën a am taxawaay yi nga xamante ni loolu la Sénégalais yi di xaar ci seeni institution jéeye la euh, tiis la naqar la boobu foo ko mën a takk et di su dégg loolu président wax euh, Nous nga la comprendre situation et interpeller toute la classe politique muy une responsabilité nous euh, ñu liggéey euh, dekk Sénégal le suñu doomu loolu yaakaar ni ñun ñëpp dinañ ci taxaw ba doom yooyu di dee ci géej at bu jot loolu daal di jeex euh, ba faaw. doomu réew mi fi la ñuy des dañuy wax ni ci Rome antique bu yàgg ba bu dëkk bi Rome nekkoon ci crise ba am ñuy bëgg a génn di daw dañuy ceinturer dëkk bi joxante ay loxo taxaw ñu ni Rome warut a génn biir Rome. Euh, kon yaakaar naa ni man Sénégal it warut a génn biir Sénégal ñun ñëpp dañoo warante joxante loxo ngir xale yooyu des ci réew mi ndax xale yooyu ñooy Sénégal ñooy ëllëgu Sénégal et donc loolu ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw.